ak tay mu ne loolu atam bari na de mu ne président yu bari nekk nañu si njiitu réew fii mu ne centre bi fii la nekkoon mu ne même président yooyu bu ñuy jaar si yoon bi dañuy gaaw du ñu xam sax xool centre bi président premier président mu ne président premier président mooy président Macky Sall yow mi président ñu ngi lay sant ci loolu. mu ne du tey rek mooy sa benn yoon yàgg nga ñëw julli ak ñun fii ci centre bi. kooku communauté mu ne ñun communauté solidarité. mooy semence ci nous sommes entièrement à part. at yi mu ne moo ñoom dañuy yaakaar communauté solidarité. dañ leen benn loxo rek ñoom à part la ñu nekk kenn faalu leen liggéey depuis bu nga ñëwee ci bopp réew mi président de la république président Macky Sall président yàlla mu ne tey principe yu nga am ah, Sénégal mu ne Sénégal yëpp nga dajale amul tukulóor amul soninke amul joola amul manjak amul séeréer ñëpp nga def benn président bi ma suuf ki may def rek mu ne fii moom amul beneen président bu ko def lu dul suñu président bii toog mooy